Yeah, what's up guys nouvelle bu neex laa di expliquer maa ngi nii tournage cœur brisé donc voilà xam nga. Ah, yéen a ko. <laughs> <laughs> Eh, je vous promets Bouba mu ngi ñëw kër. gars yi wéet leen ma brisé yéen ko doon laaj. stay tuned day ñëw ci nii ñëw ci baa ci nii baa ci nële. lu leer la la. sa ñu daal maram maram day ñëw bokk. wàcc na démb donc voilà <laughs> ndigal wàcc na ndigal. gars yi wéet leen ma next épisode ku ma gisul ma ko. Ah, dégg naa Massa. mu ngi ñëw je vous annonce l'arrivée de Booba. mais ngeen ne ban booy mooy. Ah, la ban booy non mais ban xale est ce <laughs> <laughs> yow kat dégg naa da ngay baani baani. kat yi. kat yi Booba rek moo mës moom lu leer laa la wax. <laughs> dafa yor yor samay samay samay bagage yow yaa ma si ma dimbali récupérer kat yi bi dama drogué film loolu <laughs> xam nga loolu sama commentaire bi ma def sa page moo ma métti nga bàyyi doon li ma doon génnee non dégg ma la wax booy bi day jaay bëri histoire mission mais doo wax ci album non mais lii la ñuy dikkee arme de guerre baa ngi nii kat am na problème Massamba lii lay sañ sa wér léegi barki alxuraanul karim wala partenaire officiel de Massamba Al Maktoum carré dans cœur brigué